addiinu nasiha Sëriñ Tuubaa daan na wax ne dee mayu gis seen bopp ndax ku gis boppam yàlla réer ko te ku yàlla réer saytaane wommat ko te ku saytaane wommat safaan ba la ko jëme